Thank you Pape ku ne xam na ni Pape Diouf lu mu mën a am banlieue bi moo ko gënal doomu ginnaaw raay la euh, jamono yi ñu génn ñu gis banlieue bi inondation bi sonal leen ba doomu aadama yi dem ba def ci ay appel de détresse euh, état du Sénégal ne dugal na ci une budget de 750 milliards en tant que doomu banlieue dund nga fa lu mel noonu fekk nga ko yan solution nga jàpp ni que moom la ñu war a mën teg pour dimbali waa banlieue bi ñu génn situation waaw je pense que loolu man ay at maa ngi koy wax defe naa ni amona ay jamono bi inondation euh ñun ak plan Orsec ak suma grand malik Gakou dajale woon nañu ben somme génne ko d'ailleurs ma ngi féliciter état bi ci budget bobu nga xamné euh def nañ ko mais je pense que ni tay euh amna ben communication buma ma def peut-être bima koy wax dégguñu mais bima nan dañu wara def la police de l'inondation la police de l'inondation mooy jeunesse bi nga xam ne tey nekk nañu banlieue amuñu liggéey y a beaucoup de jeunes yoo xam ne tey ñu ngi yeewoo ci banlieue bi ñoom xam nañu banlieue bi xam nañu gox yi taa te booy yooyu amuñu liggéey mais ñooñu tey bu ñu leen teeloon recruter commencé woo techniciens parce que man duma technicien duma ingénieur ci côté euh, assainissement mais artiste laa boo xam ne rek damay am yëg-yëg wala damay am gis-gis mais dama gis ni que tey banlieue bi am na booy jeunes yoo xam ne il sont déterminés ndax dañu dañuy bénévolat sans ñu fay leen ndax bu daan taa jamono yu mu daan taa muy metti da ngay gis koñ boo xamante ni dañuy def ay kuréel bu guddi jotee ñoom ñooy gas koñ yi bu tawee ndox mi jaar fa mais je pense que tey ñooñu état bi bu leen accompagner woon déglu leen ñu def concept bu tudd la police de l'inondation xalé yi nga xamné ne ñu ñu bënd leen recruter leen je pense que ni dinañ am solution bo xamanteni tay du mëna inondation mëna na jeex rapidement mais dinañ ko alléger dina wañéku donc man idée bobu rek la am donc benen bi ci top aussi euh, téléthon nga mëna def mais ak par rapport au Covid bi tay y a beaucoup de problèmes financiers artistes yi liggéeyatuñu am na ñoo am problème financier bu ñu xëyee lu ñu la ni tal ba du mëna dimbali keneen donc bu dul côté Covid bi ñun programmé won nañu aussi reprendre téléthon boobu nga xamné defon nañ ko mais je pense que ni tay sama xalaat bu gatt en tant que citoyen sénégalais moy état bi def na un geste bu am solo mais sama sañoon dañ ci euh jeunesse bi jeunesse banlieue bi ñu baña xaar rek parce que lu belt daf lay mën mais yoy c'est des programmes yo xamné il faut gars tel que ko teel ko préparer parce que banlieue ni mu as ni ñu ko de dafa compliquer pour ndox fi muy jaar ba dem géej wala dem ci égout bi day metti mais loolu bu télé teelee je pense que maman yi moo wax presque def na légui six ans mais maman boobu bu défendre l'ol peut-être bu na nawet wàccee rek ci nord bi ñu def recrutement bi àndandoog wa ONAS ñu xol nan lañ mëna def ba bon xalaat la rek quoi du technicien nak mais comme que dañ ma ciy laaj mais idée boobu man idée boobu laa am parce que banlieue falaa laa dëkk sant xam naa ko loolu rek mooy suma xalaat. merci beaucoup merci.